ahousubillahi min asheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. Barke Khadim Al-Mustafa. Mangi eh, maa ngi tudd Xaadim Fall eh, dëkk Touba Ngent fi ci Thiès Yalla dogal it may jëwrinu kuréelu Majmahun Nurayni fii Fawaa'idi ni. bi nga xam ni moo di taxaw Touba Thiès Euh dama ñew ngir ndigal lu bàyyi ko ci sama sëriñ sëñ Moustapha Mbacke imam mu sëñ Abdou Khafour Mam Mor Diarra jëm si ci xew-xew yi nga xam ne ni ma ko waxe woon amoon na fi ci dibeer bii ñu weesu te ñu njëkkoon ci addu ngir indiwoon ci ay dindi tuuma yoo xam ni keroog bi sëriñ bi ñëwee mooy ndaw yi sëriñ bi yebaloon ni ma ko waxe woon ci njëlbeen nga xam ni nun sëñ Ibrahima Gueye xasaayit di kiy jàng fulku bi ci jàkkay murit moo nu woowoon ci guddi yëgal ñu ni am na gan ñoo xam ne sëriñ bi da leen fi yebal si ngir lu aju ci wàllu jàkka ji loole it ñu jot li woon ko secrétaire généralu mbooloo mi lu jiitu loolu it ñu woowoon maam Cheikh Ndiaye nga xam ni jëwriñ la ca kër ga leer lu ko it mu leeral ñu ca ni Baye Papa Dioum ma dem ba jum mii jëwrinu fédération murid yi ci dëkk bi moo ci joxe woon ndigal ci ñu soññi ñëpp ñu ñëw fekke si ko loolu it bi mu amee ñu yëgal ko jëwrin yi ñu ci war yëgal ci maj ma woon ni bi ñu xëyee ci tàkkusaani suuf ñu yegg si bi ñu fa ñëwee it euh, ñëw nañ fekk jàkka ji fees dell ñu ma ko waxe woon nga xam ni daja nañoo ak sëriñ bi muy sëriñ Saalihu ture mu ànd ak sëñ Xaadim ture ànd ak maam Cheikh Ndiaye ak lenn ci mbooloo mi doon dellu ci këram bi loolu amee it e, ñu taxaw ci biti sëñ maam Cheikh moomu bi mu delsee ñu laaj ko ndax gan ñi ak si neen mu ne ak seegunu xamal ñu it sëñ Cheikh mu sëñ Abdou moom la sëñ bi yebal mu war ñëw sëñ Cheikh moom it am na ndog lu ko tee war a mën a ñëw ci yaramam ba tax na ñu yebal sëñ Moustapha Lakram foofee lañ taxaw doon taaxeerlu bi gan ñi duggee ñu bokk ci ñu dugg àndandoog ñoom mën a toog fu jege yàlla dogalee loolu amit ba xew-xew bu ku ne xam na ni ni mu demee ndax fa la fekk ñu bari eh, bala ca am am ca mu doon loo xam ni maanaam xawoon naa metti lool ndax bokkoon ñañ ca ña nga xam ni doon nan doon nan doon nan fexe ngir jàmm am fa biñ ci jógee it nag ba toll ci war a dellu sunu kër lan ñu woo téléphone xamal ñu ni am nañu jëm si sunu kër muy sama kër yi way jur ngir def si fa safaan ci lañu woo commissaire wax ko ko woo ñi nga xam ne jàpp nañ ne danañ ca war a mën a def dara woo it sunu waa kër xamal leen ni nañ tëj kër gi ba ñooña lañuy ut duñ ko mën a am loolu rek lañ ñëw ngir indi ci ay éclaircissement maanaam ay leeral ndax dañu yëkkati woon ay tuuma jëmee ko ci ñun ma am lu ma waxoon waxoon naa ñëpp ni maanaam loola bokk na ca lañ ñuy tuumaal di wax ni bokk nañ ca ña demoon ca sëñ Muntaxa ngir lu aju ci kër sëñ Saliou Touré dama waxoon ni demuma ca yemuma rek ci demuma ca waaye yëguma it ni loola amoon na loolu nag moom laa ñëw rek ngir leeral si ko ak mbooleem yi ci aju nga xam ni aw nit ñoo jóg taxaw ci bi nit ñi amee xol yu tàng ci xew-xew bi ni mu demee xale yi seen seen seen dënn jóg am ñaari nit ñu jóg taxaw wax ni Xaadim Fall dafa bokk ci ñi demoon ñaar ñooñu nag Moon Njaay Mbay la ku ñu wax Moon Njaay Mbay ndax topp nañ ko ba xam ñan ak ñan la def nañ ci ay gëstu ku ñu wax Moon Njaay Mbay nekk ci daara ju ñu wax Miftaaxul Muna moo yëkkati kàddu yooyu ànd ak keneen ku ñu wax Góora Njaay te ñaar ñooña ñooy ànd ñooña nag yàlla dogal na ñoo yëkkati kàddu yooyu ci kaw yi seede ndax ña fa newoon dafa bari ci aw nit ña ca dëgg ñor te ñuy ay ay nit ñoo xam ne dara dara ceytaane tàbbiwut ci seeni xol ñooñu ñoo delsi woo ma téléphone xamal ma ni diw sangam ak diw sàngam ak diw ñooñu ñoo wax ni yow danga ngaa danga ngaa demoon ca jotaay ba yàlla dogal it ñun bàyyiwunu loola ñu koy topp di nemmiku mbooleem ñi nga xam ni wax nañ ci loolu kenn ku ci ne xamal ñu ni maanaam ñooñu ñoo wax wax jooju ñooñu nag yàlla dafa dogal ni ma koy waxee ah nun yàlla danoo booleeg sëñ Saliou Touré ndax mbooloo mii di maj ma nooree ni biñ taxawalee bisu xaside yi te dem ci moom te mu jox ñu ci ndigal ànd ak ñun ci jotaay yi yebal ma ci sëñ Saliou Mbàkke ma ànd ak mbooloo dem fa sëñ Saliou jox ñu ndigalul ñu taxawal bisu xaside yi ci 2002 naka jekk dafa am ñoo xam ne taxawaay yooyu ñu doon taxaw neexu leen jëmm yooyu ci lañ bokk ñun yàgg nañ leen a xam ndax yàlla dogal na ci ay jotaay yu bari lu nu mën a firndeel la ndax sëriñ bi dafa jël ay responsabilité jox ñu ko ca kër ga ñu ànd ak moom ci liggéeyal sëñ tubaab bi muy def ni ma ko waxee woon te ñëpp xam ko muy gàmm muy muy muy bépp jotaay bu mu mën a doon mu jox ñu ci cër boo xam ne di ñu ca nemmiku yëg ñu ca am loola nag ñoo xam ne loola neexu leen jëmm yooyu ci lañ bokk yegg nañ ci def ay jotaay yu bari ngir tas wàllu bisu xaside yi te loola suñu borom sottalu ko ñun xam nañ ci lu bari waaye loolu taxu ñoo jóg dañu bëgg ñu xam rek ñi ñuy tumaal xam nañ ñu mu doon xam nañ leen ni ñu sëriñ bi defa neexul loolu ñun munuñ ci dara munuñu ci dara moo tax dañ ciy sant yàlla ñoom ñoo yëkkati xoli nit ñi ba tax nit ñi jóg jëm ci sama kër sama kër yi wayjur dem fa ngir yàq yi dogal na it ña fa demoon ñun xam nañ leen ndax dëkk bi ci leen dëkk du nu fi du nu fi du nu fi doxandeem jàmm rek lañ fi séq ak nit ñi séqu ñoog ñoom aw ay kon ñoom mënuñoo yëkkati fitna ju toll noonu jëme ko ci ñun té nit ñi duñ ci am réaction loolu mënul ne bi loolu amee xam nañ ñan ñoo fa ñëwoon mbooleem ña fa ñëwoon ña ca ëpp xam nañ leen ndax daa am ñu leen jiite am na ca koo xam ni suñuy kër a bi muy ñëw beex weex la sol am ay rayul may bañ a jaar ci benn tur ngir wane rek ñu xam ni ñun ñi ñu doon agressé si ñu doon yàq si suñuy kër xam nañ leen kookee ba mu ñëwee te wane sama kër wane ni fii laa dëkk nit ñi laaj fu ma dëkk mu wane ko yàlla dogal na moom ci jëmmi boppam ay mbokkam tatafu ko ni ko jëf ji waroo cee bokk jëf ji waroo cee bokk ñaaw na lool simmil ko la mu soloon mu sol leneen ba dem ñeneen ña ca topp am na ca kopp dawalkatub jakarta bu siiw la ci dëkk bi te dëkk péeku xam nan ko bu baax ndax jëf ji am na ñu leen gis te dañoo bari pour ñu xam ne rek ñi ñu song si woon ñun xam nañ leen am na ca gone yoo xam ni ñu nga dëkk som xam nañ leen bu baax dëgg yàlla ñu ñu dañu bëgg nit ñi xam bu baax a baax ni ñun ñu dal si woon suñu kaw xam nañ leen te ñoom ñi jóg dañoo jóg ci kaw meri jàmbur ngir daa am ñu bëgg faj seeni mer jëme ko ci ñun te ñun tooñuñu am na ca koo xam ni kilifa la ci dëkk bi ndax bu ñu seetaanee vidéo yi nga xam ni ci lañ doon def ay intervention di ngeen gis ni mooy ki kagulewu jël yére bi mu soloon takk ko ci maanaam fi tolloog ay bëtam ngir bañ ko ko ràññee te liñ ma def rek lañ naroon a def maanaam maanaam biir réew mi ndax dañ ma tuumaal te ku ne di nga dégg ci biir vidéo bi Aline mbay di wax te jëmee ci maanaam li leen metti ñoom moom mu koy joxañ di ko wan ko na wax ni GMI yi dañoo sànni ay grenade lacrymogène ci biir jàkka ji ci kilifa gu toll noonu nga xam ne kuñ xam la mu mu nekk ci biir mbooloo di kagulewu ngir désorienter nit ñi indi geneen fitna loolu rek lañ bëgg ñu xam ni niñ ma def lañ def ñeneen man nag maa ngi santaat sëñ tubaab bu baax li ko waral mooy tooñu ma tooñ nañ ma nag tooñ gu ma naqari goo xam ni sëñ tubaa rek laa ko seedeel ndax dama wuy si woon ngir sëñ tubaa ñoom ñu jaare ci sukkandiku ca loola di jéem a faj seen mer ci man waaye nag ñoom yàlla dogal na ñoom duñ ma mënal dara ñoom ndax li sëñ bi def ci man moo leen naqari sëñ bi man damaa jaxasoog moom muy sëñ Saliou Touré jaxasoo goo xam ni ci biir ak ci biti la amut lu ci des te loolu ñoom mënuñu koo yàq seen jotaay bii daa mel ni sëriñ bi xamoon na ko ndax woo na mag tàkkusaan ni ma saa bu la noonu dikkalee na nga wax nangam suñ dee mbooloo na wax nangam kon sëñ bi mel na ne xamoon na ni ñoom danañ ma dikkal sëñ bi bàyyeewu ma sama bopp moom sëñ Saliou Touré ku ma jaxasoo la ku ma fonk la teg na ma fu mu tegul ñu bari te nit ñi xam nañ ko ma doyloo ko ci lépp it moom mu xam ko ñu jaxasoo jaxasoo gu wér goo xam ni ñii di coow ak ñii di yàq munuñ caa jot danañ jéem nag waaye duñ ñu ca jot la ko waral mooy moom moonu def nim ñu def jàpp nu ku mu naqari yow lay naqari waaye moom moo ko def nun nag nu koy sant moom di santuk njabootam bu baax a baax nga xam ni amuñook ñoom na ma ko waxe woon ak dikk te du mës a am ñii yëngalit bëgg wàññi sama pas ci doxin wi ci dëkk bi wàññee sama pas-pas ci sëriñ bi dañu yëg ni duñ ma atteindre dun ko man ndax biñ may tuddee Sëñ Tuubaa fekke woon ko buma seigne touba di liggéeyloo seigne sall Touré wax mako ñom ñoom ñoo wañi sama pas-pas layit lama may yóbbu jàkk yi du ñom seigne bi dama wo woo dafa wo seigne Ibra Gueye fekk ma nek ci réunion waj tayu gam ci jakk ci ci ci ngent kër Mansour Mbaw mu yoni seigne Ibra ne ko wol ma khadim Fall mu ñew ma ñew mu ne ma lima lay doye moy mag ñi ci jakk ji dem ba magal ma bëgg gamu gi ma tek ko so loxo Ibrahima Gueye tant bi it su ma ci gisutoon kenn ku dul maak yéen ñaar ñii li ma bëgg ci gàmmu gi naa ko am ñooñu loolu bu leen naqaree nañ dem ci sëñ ba moo ko def du man fulkul maçon bii sëñ bi moo ma woo ba ma ñëw boobee sëñ Ibrahima mooy moo ciy jàng ak sëñ Cheikh Anne ak moom ñu koy awante mu am bis mu woolu ma yónni eh, yónni am na ku mu yónni ci ñi nga xam ne dañuy nodd ci jàkka ji eh, Iba Iba Iba Thiaw ne ko wool ma Xaadim Fall xasaayit ma ñëw wuy si ko mu ne ma damaa bëgguñu ñu ndogoondoo bul ñibbeeti te ndogu ak man ba noppi ba loola jàllee mu ne ma ci kanamu sëñ Ibra Gueye euh, fulk bi saa bu waxtu 6 heures jotatee na nga tàmbali njàngum xasaayit mi ànd kook sa kuréel looloo sabab kuréel am foofa ca jotaay ba ni amu fa woon du woon sa sababowul woon ci yooyu kon ba loola amee ñu nekk ci jotaay yooyu at moom ma wooyee jox ma ko sant ñu loolu ca déwén sa juróom fukki basang lañ fa lal ndax fukki basang lañ fa daan lal ñu ciy sant sëriñ bi mbooleem taalibe yi fuñ ne ñu fekk leen fa mbooleem daara yi 37 daara yi ma jiite kenn ku ci nekk ñu soññ la luy tax ñuy daje ci jàkkay murit kon sëñ bi la mu waxoon ni dañoo ànd liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moom lu wér la ànd googu nag naka jekk dana am ñoo xam ne du leen mës a neex jëm yi ma lim ci lañ bokk te nañ ko ci ay jotaay yu baree baree bari nit ñi xam ko bari na ku waxtaan ak ñoom di nga yëg ci ñoom ni am na lu leen di metti te da leen di metti sëñ bee ko def ci man loolu nag ñoom yàlla dogal na sëriñ bi fàggu woon na démb loo xam ne mooy tax duñ ma mënal dara ñoom kon dama bëgg ñoom ñu dal bu baax nañ dal bu baax leneen li ci topp euh, moo di nu ngi nu ngi nu ngi nu ngi nu ngi sunu wayjur wi ñëw fekk ko ci kër gi nga xam ni mag mu am quatre-vingt-cinq ans nga waaxu mat deux cent cinquante personnes ñëw fekk ko ci kër am yéene taal kër gi ndax sànni nañ fa luy war a mën a tax mu tàkk waaye ñoom danoo xamul kooku fa muy toog waxtu wu ne ci timis diggante timis ak gee du ca wax di werd la muy werd ñoom xamuñu lom fay def te ay ati at mu ngi koy def te am na quatre ans kër googu nag lañ bëggoon toroxal nga xam ni maanaam bokki taalibe yi suñu dajee di jàng xasida muy kuréelu xasida yi foofee la ñuy dajee di ko yëkkati ñoom moom lañ waxoon ne moom la si waaye waroon na ñoo xam ne duñ ko man ndax ba ñu jógee de ñoom ni ay taalibi lañ ñëw nañ fekk ay katolik sax ñu taxaw ne lii du am fekk nañ seen yeneen bokki jullit yoo xam ne taxaw nañ ne lii du am am ku leen ni eh fii kër sañ Tuubaa la dëgg la ndax ay bagages sëriñ bi rek ka fa ne kon ñoom danoo seetut bu baax liñ doon def ñun nag ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax xam ni lu mu mën a yàgg-yàgg taalibe rek lañuy doon du doon lenn lu may ab taalibe suñu diggantee kër njabootu sëñ Saliou Touré yi ñoom ñiy yëngal ak a wax munuñu koo yàq mën na noo wax nag ñoom ba yàqoo ci waaye ñun munuñu ci cee yàqal munuñoo teyel ñu liggéeyal sëriñ bi ndax bi ñu sëriñ bi woo dañu taf ci wetam boobu ñu nga fa te tafu ko ak ñoom kon nun amoon lu nuy lu nuy lu nuy lu mettitlu ci jëf yi lu dul suñu wayjur woowu ak gone yañ fa fekk nga xam ni suñ leen loroon du ñu xam tey jii lan lañ cay wax te rëccu gu baree bari am ci ndax amna mourid murit yo yoo wonan ma telephone ku demee ni sëñ Omar Sow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lu lolo ndax nan ba lolo amut ay sosi kep la waye nag ñun duñu metti ndax ñun ay mourid lan seigne touba lañ yaakar seigne bi de kérok daaru manan biko quartier gi songu ci te am pas-pasu dugg ci kër gi te seigne bi wax ni seigne seigne euh, nañu nañu jàng xasida garab bi bi maayesroo keroog mbaaxaan bi muy dugg ci kër gi fuko sop la jaar jaasem la yor té kër seigne touba la te ñun ay taalibe yi sëñ Tuubaa la kon ñoom ñi ñëwoon di song si sunu kër sunu delloo ci cosaan dañuy xam ni sëriñ bi defoon nan ko tuumaal gi ñu tuumaal dara metti ñu ci ndax sëñ bi ay tuuma lañ ko tuuma woon ba génne ko réew mi loolu rek mooy li am dañut dañut dañut dañut dañut ba ak njabootam gii dañut ci ñoom sëñ Abdou wax na ni sëñ tubaa jurul ak jurum jurum jurul ak képp lañ ma waxut maam Cheikh Ibra daan na wax ni moom ci jëmmi boppam Cheikh Ibra wasin na kepp kepp lañ ma waxut ndax danoo xam ni góor laa te góor du wasin sëñ Saliou Touré mii nga xam ni moom nee nañ ñoom moo leen tax di yëngatu moom ci boppam toog na ma toog mu toog mbooloo toog mu wax leen ni tam sax def nan ma ko ci dëkk bi kon nag ñun suñ ñuy tuumaal du ñu war a naqari ndax dañuy xam ni ay noon yu jóg lañ te duñ ñu mënal dara nag ala kulli xaal kon yooyee lañ jubloo woon leeral ba kenn ku ne xam ni tooñ nañ ñu nak tooñ gu mete, méttee méttee métti go xamni manam moy jima yak suñu der waye duñ ko man ñun nak la waralon señ bi tànn tek ñu ci wetam dinañ ko gis ci ñun waye ñom la waralon ñuy ñuy nakarlu sa su ne dinañ ko gëna gis mooy dañoo tolloowul ak ñom ab ab way nañ yek ni jéggel nañ leen ñun ñom da xajo nañ tooñ ñi ñu tooñ ngir ki nga xamni ne tax ñu tooñ ñewu ñu woon ñun euh, jakkay murit ngir suñu jëm dañ faa jógoon ñëw fi ngir sëñ tubaa kon suñ ñu wëlbatikoo tooñ ñu ngir sëñ tubaa ñu xool ci sëñ tubaa xajoo tooñ yooyu sëñ Muntaxa ma jéggale sëñ Moustapha Lakaram ma jéggale ñun ñu ngi sukkandiku ñun ci njéggal googu ñun tey ñaan yàlla mu jéggal ñu waaye ñun jéggal nañ leen ñoom ndax ña jógoon jëm si ci ñun kat meru jàmbur lañu lañu utilisé ay nit a leen doon jéem a merloo ngir wan leen ni xaadim Fall waaw xaadim Fall mi ñu leen di wan murit saarix la bëgg a doon bëgguma doon leneen lu dul loolu utuma benn cërit maa ngi défier waat àdduna ci wax jama waxoon ni na ñëpp xam ni wax ji ñu wax ni damaa demoon ci sëñ taxa loolu amul képp ku ci am preuve défier naa àdduna bépp nañ ko wane leneen li ci topp yit waxuma waxuma ñàkk a dem gi waaye yëg ni am na ñu doon dem képp maa ngi défier àdduna ku mën a doon na wax ni maa ko fekkee wala maa ko yëg wala nangam ak nangam wala maa ko wax kenn du ko gis ndax dafa amul ñuy ruuxale nag ak yàq du mës jóg ci jamono waaye nag danañ leen wane ba ñu xam ni ñooma ñooma man duñ ma mënal dara ndax sëñtu Tuubaa laa yaakaar kon loolu laa jublu woon a leeral ba ñëpp xam ko di jéggalu bu baax it sunu dëkkandoo yi nga xam ni fitna ji yegsi na ci ñoom ndax mbooloo mu toll noonu koñ bu ñu dugg ku ne xam na ni aw tiit dana fa am waaye mbooleem waa ngent mbooleem dëkk bépp mbooleem jullit yëpp mbooleem waa àdduna ñu ngi leen ciy jéggalu ndax am na ñooñ ay soppelante bu ñu déggee wax ji jaaxal na leen waaye am na ñoo xam ne rafet nañ ci ñun jort rafet njort gu toll ni xam nañ ni loolu ñun duñ ci mës a bokk te bokkuñu ci ba ba mu amee ñu ne ñu taxaw ni Xaadim Fall de lii bokk ci am na ñoo xam ne it gannaaw loolu la leerlu nan ba wane ni xam ni ñun bokkuñu ci ba ñu wax ko te ñooña moo ne ca biir kër ga lan ne waaye nag dëgg moom ku ne xam na ni kaw rek la jëm fen moom day xal di màbb waaye fen yi dana màbb ba ñëpp xam ni màbb na ndax kin ko fenal moom mi ko fenal sëñ tubaa la jógoon di liggéeyali te ñu koo teye liggéeyal sëñ tubaa sama pas-pas munuñu ko wàññi ci sëñ bi ci benn saa munuñu maa tee di ñëw jàkkee murit munuñu maa tee di bëgg sëñ Saliou Touré munuñu maa tee jaxasoog sëñ Saliou Touré ak njabootam ndax ñoom boolewuñu ma ak sëñ bi loolu laa bëggoon a leeral ba kenn ku ne xam ni loolu laa jubloo leeral di jégalu sëñ Muntaxa Mbàkke nag jégalu gu mag ndax moomkat kat liggéeyal sëñ tubaa bii moo nga xam ne ci la ne mu yegg si ci loxoom ñun de dañoo bokk ci ñi nga xam ne yéene nañ ko mu yóbbu ko fu kawe njort ñu ngi koy ñaanal suñu borom yóbbu euh, kàttanal ko ba lépp lim ci bëgg mu yóbbu ko fu kawe njort ñu ànd koog moom sëñ Saliou Touré suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram bu baax a baax moom de moo ñu jàpp ba ñëpp xam ko kon keneen ku ñu bàcc yi njabootam maanaam ci taalibeem du ñu saf ndax ñoom ànduñook ak sëñ bi yàqal ko képp la ñuy def ñoom ñooñu kiy ànd ak sëñ bi mooy boo amee lu la naqari danga koy seete neneen waaw sëñ bi ñi muy yar du ñuy wër di yak señ bi ñimi yar du ñuy toj ay kër señ Saliou Touré kumu yar du am yërmande képp ngay fessé di nga jombalé sa bop def lo xam tay ji aduna dana la ca ngàbbe té ñom dé indi non dañ indi musiba mu réy réy ci aduna teg ko ci kaw señ Saliou Touré ndax lu aduna yag yag dañuy xal di wax ni kon njabootu señ Saliou Touré ño def ndag waye mom fagu won na lool ba tax kenn looru ci ñu ngi koy ñaanal suñu borom yagal ko fi te mu dolli ku wér waa maj ma nóoree ni gi nga xam ni ñoom laa jiite ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ndax kenn ku ci ne bi mu yëgee yëf yi maanaam am na ca ko naqari ba ñu jotaayoo ca ñu ngi leen ciy sant euh, te di leen jaajëfal tey gërëm bu baax a baax it maanaam euh, euh, Pape Doumbia mi nga xam ni moom moo moo moo ñu may occasion wu ñu mën a ñëw fii ci Thiès Prestige ba jottali li nga xam ni moom lañ bëggoon a jottali ñu ngi sant bu baax a baax tey ñaan yàlla ci darajey Sëñ Tubaa sunu boroom yàggal fi sëñ Muntaxa yàggal fi sëñ Saliou Touré sëñ Moustapha Imaam sunu borom yàggal ko fi te ànd ak wér sunu waajur yi sunu borom yàggal leen fi sama mag ji nga xam ni yëf yi bi mu amee jaaxal na ko lool muy Pape Salif moom it sunu borom yàggal ko fi te dolli ak wéram loolu lañu jublu woon a wax ñu xam ni ñun réeruñu dof juruñu dof yaruñu ay gone yu ndaw munuñu ñoo jaxaseeg àdduna loolu lañ bëggoon nit ñi xam ko waaw loolu rek lañ jublu woon leeral والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته